saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat yi ñuy waaj a taxawalee ca sottegee ci sotteegul Boy Niang 2 Lac de yi la ñetti bër ñoo des ngir ku ci nekk xam kan nga war a bëreel Balla Gaye 2 Gris Bordeaux loolee féete na boor Eumeu Sène Bombardier it féete boor Ama Baldé Modou Lô féete boor Siteu Papa Sow féete boor Lac de ak Tapha ak Boy Niang ñetti mbër yooyee ñoo ca des mbooleem ñi doon xalaat ne Boy Niang 2 dana bëreeg combat ñor na neex na diggante ñaari doomi bawal yi ku ko tëgg tëgg lu neex tafaatin bu reefaan ak Boy Niang bu saambe ku ko taxawal taxawal combat bu rëy waaye doomi dégol ji sawarut ci bile combat clarification digganteem ak Lac de sax moo ko gënal moom dem leeral combat bi doon dox ci digganteem ak Lac de moo ko gënal bëre keneen viseur kenn ci nekkoon muy Balla Gaye 2 même yi muy bëreeg Sa sax combat ak Balla Gaye a dal boobee ba léegi a delluwaat ci Balla Gaye 2 moom Boy Niang 2 mu ngi jàpp Balla Gaye 2 ca la ne toq ci nopp Baye Mandione ba mu ko yégee waajur yéexalu dafa kar émission bay am ca rajo Alfayda daal fay woote leeral digganteem ak Double Tyson ba mu leer naññ la mu xamle mooy Baye Mandione mooy amul benn promoteur bu ma mës wax Double Tyson amul benn promoteur bu mës a dox sunu combat amul kenn ko ma mës a di ma wax waxi Double Tyson musuñu see waxtaan ak man musuñ ma ko proposé benn promoteur moo ma fi mës a proposé combat te boobee sama diggante xooyantaan la woon te ba ma ca waxee dama ko ne amul benn problème ndax Kaolack sama Kaolack la bëri fa ñaari yoon benn bi sama diggante ak Biris bu faas la woon ma daan ko beneen bi Baboy moo ma fa daan en kon Kaolack xam naa ko miin naa ko bëri fa waaye Double Tyson mii ñuy wax amul kenn ku mu mës wax sama combat moom ka ñuy wax combat ak Ama beneen promoteur doxal carrière am déet ñépp xam ne le roi des arènes Modou tooyal ngembam rekk la bëgg te est bu promoteur ñëwee fay ko lu ko jar ak adversaire bu ko jar dana tourner le dos à Luc Nicolaï en laaj la bu sunu làmb samp dana ko defam du ko def li ci kanam rawuli bët guy gi dana bëreek rek rek wala déet loolee léegi mu leer négociation yi doon am ci diggante promoteur bi bëgg bile combat ak mbër mi léegi mu jeex du n'importe quel adversaire mbër mu nekk champion ci lutte sans frappe ba noppi déggagul mu ñal ci avec frappe boo koy jël faaw nga teg ko fu leer bile combat guy gi xalaatu cee jël risque ba pare ñàkk ci xaalis dañ koy fay lu ko jar ba noppi muy doog a bëri bile combat li ni mel nag dafa mel ni waa Sénégal Entertainment Group danañ ko ko nangul en ñaari parti yépp ñu ngi négocier ñu ngi toog di xaar te njort na ne du yàgg tuuti ñu dégg ne bile combat na combat bi fi taxawoon diggante Mame Balla ak Mbaye Gouye Gui dafa mel ni day mujjee tàbbi ca ndox ma Mame Balla mii di mel ni noppeegul ngir bëre ak Mbaye Gouye Gui gannaaw ba mu déggee ne ne ko réel ñu taxaw tàllali loxoom Bougane Sarr na ñëw ñu bëre dégg naa ne fukki mbër ak juróom benn dañoo décliné offre am proposé nañ ko fukki mbër ak juróom benn ñu ruux man maam Balla bu Pikine boole buñ ma ko joxee ma jël ko te bu may jël ma koy daan jël bu rëy buñ ma koy jox ma koy daan ba toog ci kawam fa coow la nekk nag mooy maam Balla dina bëre mbay guy gi wala déet bu am combat di lijjanti beneen combat dafa mel ni noppee goo pour bëre jërë ngeen jëf mbokk li ma nekkoon a fës ci yéenekaay